aleykum wa rahmatullah ñi ngi ñëwaat beneen yoon pour waxtaan ak yéen ci benn demande sociale boo xam ne taalibe baay yu bari ñu ngi ko bëgg di ko ñaan yàlla ñu ngi koy waxtaanee ci giiw yu bari ñu bari bind nañ ci tamit muy municipalité ab maire mairie boo xam ne dañ koy am Medina Baye ñas pour ñu ériger Médina Baye en commune loolu demande la bu taalibe Baye yépp di wax obligation la sax fi ñu toll nii ndax mbooleem chefferie religieuse yi nekk ci biir Sénégal yépp di ay këri diine ñoom ñëpp am nañ mairie soo jëlee par exemple Médina Gounass am na mairie soo jëlee Cambérène Pulaayeen yi am na mairie soo jëlee Tiwaawan am na mairie soo jëlee Touba am na mairie soo jëlee Canaba am na mairie ainsi de suite ainsi de suite dëkk yooyu yépp am nañ mairie te niñ mel la Medina Baye mel Medina Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu dafa bokk ci les villes les plus cosmopolites waxuma d'Afrique waaye du monde ndax la daje ci ay nationalité duut par gàmmu rek mais par bés soo fa duggoon tey nii rek dinga fa fekk ci ay nationalité loo xam ne dafay romb cinquante nationalité ba pare suñu xalifa bi xadimul umma cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Abdoulahi Niass moom actuellement moom mooy président union islamique africaine muy ab ndomba tànk boo xam ne mbooleem boroom xam-xamu Afrique yépp ñoo dajaloo ay professeur yoo xam ne seen xam-xam dafa macc ci ay funuun ay fànn yu baree bari ñoom ñoo ko xool na ko ñun ñëpp yaa ñëpp xam-xam yow lañuy jiital ñu jox ko benn mandat fi ne nii liy xew ci diine Afrique yépp dañ koy woo suba ngoon guddeeg bëccëg mu mu ciy joxe ay xalaatam di ko diligente di ko manager waaye say bu ligue islamique mondiale membre permanent la fa waaye moom mooy xalifatu Cheikh Ibrahim Niass radiallahu an fii ñu toll ni mu toog ci place ba Baye Niass toogoon loolu lan lay tekki dafay tekki ne lu ëpp trois cent millions de taalibe ñi ngi ci gannaaw trois cent millions de taalibe yooyu nag dafa réparti ci biir àddina bi yépp duut ay sénégalais ñoo mot trois cent millions daal di tas ci àddina bi déedéet réew moo dem ñoo xam ne de souche lañ fa lañ dëkk ñooñu ñooy taalibe baay soo demoon Mauritanie tey ki jiite diine lislaam gi foofu di mufti bu mag ba mu ngi tudd Cheikh Mouhamadul Hafiz Uldu Naxwi kooku moo jiite diine lislaam bu Mauritanie yépp shérif la sëtu yonent bi la taalibe Cheikh Mouhamadul Mahi la soo demoon Nigéria tey mufti bu mag ba di Cheikh Ibrahim Saalix nga xam ne bind na 27 livres fi ñu toll nii mi ngi ci 27e livre am conseiller pédagogique la ci université yi nekk ci àddina bi yépp université Caire université Qatar université Saoudia yépp ay conseiller pédagogique la fa taalibe Cheikh Mouhamadul Mahi la waaye duut ci diine gi rek la jiite ay nit mais soo demee tamit ci mbiru politique da ngay gis ay état yoo xam ne chef d'état ya taalibe Cheikh Mouhamadul Mahi lañ soo demee kanu nga xam ne dix million de personne lañ kanu lépp ka ko jiite di Cheikh Mouhamadou Sanusi kooku taalibe Cheikh Mouhamadul Mahi la Zamfara ak yeneen i état yu nekk foofu soo demee Ghana ka fa jiite diine lislaam gi tamit taalibeem la foo mën mënti dem ci àddina bi rek danga fay fekk ay personnalités yu mag yoo xam ne taalibe lañ actuellement soo demee tamit ci wàllu économie ki moo ëpp xaalis ci at ci Afrique Aliko Dangote ki topp ci moom di Cheikh Samad Rabiou Cheikh Isaaxa Rabiou mooy baayam moo nekkoon xalifaay Cheikh Ibrahim génn na àdduna samat moom mooy la deuxième fortune financière de l'Afrique fi ñu toll nii taalibi Cheikh Mohamadul Maahi la Ali Dangote ci boppam dantata mii maamam xaalisam bii fi mu ko jëlee ca maamam ba tudd dantata la kooku taalibi Cheikh Ibrahim Niass la radiyallahu anhu donc ci wàllu économiste xalifa bi dafa am lu muy pese ci échiquier mondial soo demee ci culture noonu mooy nationalité yi ma leen wax soo demee ci sociale tamit mooy mbooloo yi ko topp ak ñi muy waxal donc sur tous les quatre domaines muy sociale muy économie muy politique muy euh, culture yooyu yëpp dafa am benn poids bu rëy bu mu ci taxawee moo tax ku nekk homme de culture xam ni àddina bi doxee kooku waroo ko zappe waruñu laa fal président de la république nga bañ ne doo dem nuyu ji ko doo toog ak moom loolu erreur bu mag la ñun nag ay scientifique lañ seetu seetuñu les causalités ak euh, sabab yi ak asbaab yi lu tax ñun daal gis nañ ne dem nga fépp te demoo ci suñ sëriñ loolu mooy ce qui est mooy li nga xam ne moom moo am moom lañ gis loolu la ñuy àtte metti nañu torop ñun mboolem taalibe yi waaye loolu li koy defar rek mooy ñu fexe Medina bàyyi am commune am benn maire bu fay nekk nekk taalibe bàyyi dëkk Medina ba pare nag topp xalifa bi déggal ko ba projet yi xalifa bi am bëgg ko def biir Medina bàyyi yépp mu mën ko sotta Medina bàyyi nag sur le plan géographique mooy quartier boobu di dina bàyyi mais sur le plan plus concret Medina Baye Taïba ci Medina Baye la bokk Kossi ci Medina Baye la bokk Nigéria Kano ci Medina Baye la bokk Amérique ci Medina Baye la bokk maanaam dëkk yi nekk ci biir àddina bi yépp xaj nañ ci Medina Baye mais Medina Baye xaju ci kenn loolu nag dañ ko war a wax pour nit ñi xam ndax xamuñu xalifa bi lim taxawee problème mu Soudan bii mu réglé rek en quinze jours la ko réglé te Nations Unies wër nañ ci trente ans pour bëgg dajale cinquante tribus yu nekk foofu pour wax ak ñoom moom mu ñëw en quinze jours mu dajale leen génn dem ba ñëpp def cessez la feu bàyyi xeex bi ne dootuñu xeexati vendeur d'armes yi nga xam ne ñoom loolu seen traite la dafa baax ci ñoom guerre rek lañ bëgg ñoom ñoo fa duggaat taalaa dëkk ba te loolu bim ñëwee fii suñ président de la république bi fi nekkoon recevoiru ko sax. benn envoyé spécial la yónnee pour ñu teeru ko loolu su doon beneen réew la prouesse bu day noonu eh, Nations Unies sax dañ koo waroon a woo toog ak moom wax ak moom loolu nag duut ci Baye Niass bay la mu waroon a liggéey liggéey na ko bañ nommé ko cheikh al islam ca al azhar mu jiite leen juma lu kenn mësta def ci kaw suuf ab étranger bu ñëw di jiite jumaa nekk musaafir ba pare dem fa ñu jox ko mu jiite juma dans les années 60 bàyyi li mu waroon a def liggéey na ko ba pare mag ñi tamit li ñu waroon a def liggéey na ko te bàyyi duur rek mooy international ci biir faydu bi waaye loolu mu yoroon dafa def délégation de pouvoir joxaat ko ñeneen gis nañ fi Seyda Mariama Niass deux mille personnes ñoo tari ci loxoom loolu prouesse la gis nañ fi Cheikh Assane Cissé ak ñeneen ñi nga xam ne tamit ñi ngi continuer di propager faydu bi noonu moo tax ñi ngi ñaan taalibe yépp ñu jóg taxaw ndax àddina bi rapport de force la te suñu maam alaaji Malick si da daan wax ne Sénégal dëkk wax la ku noppi yaa tooñ sa bopp fi ne nii nañ góorgóorlu pour mairie bi taxaw ñun ñëpp ñu am suñ euh, suñ ab taalibe boo xam ne dañ koy samp foofu mu nekk maire Medina Baye projet xalifa bi yëpp mu àggale ko ci jàmm looloo taxoon tey ma ne dina yëkkati débat bii nii ci affaire obligation boo xam ne Medina war na koo am léegi ci benn maire. boo xam ne dafay taxaw foofu Médina érigé wu en commune ba nga xam ne dootul dépendre benn yoon ci mairie bu kaw Kaolack mais dafay am autonomie am indépendance am xalifa bi fu muy tukkee ti mu ànd ak maire boobu ñu mën a wuti ay investissement yuy dugg te investissement yi ci biir faydu bi rek la wax naa leen li faydu bi yor ci ay milliardaires ak li muy peser financièrement ak économiquement amul benn mouvement islamique bu nekk ci biir àddina bi buy peser financièrement ak économiquement ci lool activité commerciale yi ak économique tourisme religieux bi Medina Baye mën a représenter loolu Sénégal sax mën na cee jóge émerge wu àgg ci développement àgg ci abondance ba àgg ci prospérité